Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu ci bile te leer ci bile jamono yor yoru SeneInfo dañ ci dalal euh, ki nga xam ne moom mooy euh, monsieur Samba Ndong moom nag euh, au conseil des collectivités territoriales la nekk responsable APR ci commune bu Biscuiterie wante it moom mooy coordonnateur national bu euh, convergence des jeunes cadres républicains muy COSECAR ñu fas waxtaan ak moom euh, ci loo xam ne rek daa jëm kon ci actualité politique balaa weesu rek ma bàyyi ko kon mu nuyanteeg mbokk internet yi. asalaamaaleykum waa kër gi seen info di nuyu di nuyu en tant que. frère di nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi di suivre bu baax di ñaanal Sénégal jàmm ak salaam di koy ñaanal waa kër gi di koy ñaanal xel kilifa diine ak kilifa aada yi. di koy mhm. ñaanal sama jëwriñ sëñ Abdou Karim Mbacké mhm. di koy ñaanal aussi son excellence monsieur le président Macky Sall à tous tous les membres du gouvernement. Mhm. monsieur Samba Ndong euh, wax naa ko léegi au conseil nga bu collectivité territoriale euh, dinañ waxtaani actualité mais balaa ñuy dugg dama lay laaj lan mooy solos euh, nekk. au conseil des collectivités territoriales. xam nga euh, président Macky Sall dama wax ne moom dafa nekk un homme de vision parce que xam nga suñu waxee gestion des collectivités territoriales. Mhm. kooku mooy le poumon d'une république parce que soo xoolee collectivité territoriale commune ak département yépp ci biir collectivité bi la nekk ak euh, les maires villes HCCT euh, nag nekk institution boo xamante moom moo coiffé loolu yépp Euh, nekk institution boo xamante ne day saytu li nga xam ne moom mooy politique de décentralisation bu président Macky Sall politique de décentralisation suñ ko waxee aussi dafay am ay accompagnement mhm. accompagnement yi mooy projet yi nga xam ne moom la ñuy mettre en en relief pour que ñu mën a jàppale commune bi comme PACASEN comme PIMA comme PUDC comme Promoville yooyu yëpp c' est des projets yoo xamante ne euh, c' est des projets qui viennent en appoint pour accompagner euh, la gestion des collectivités territoriales man ma yorti nag benn commission boo xamante ne commission 2 qui fait partie des poumons de la de l' institution mooy commission développement des pôles territoires euh, mu nekk yoo xam Sénégal actuellement dañ président dañuy def diagnostic xam ne actuellement Dakar est très très très concentré et il ya a une importance capitale maintenant de décongestionner Dakar décongestionner Dakar boobu noonu moom mooy euh, moom mu lay permettre Euh, nga am benn benn ouverture ouverture boobu dafay mel ne dafay créer ce qu'on appelle la gestion des agglomérations des métropoles et il y de des métropoles am na des des centres secondaires yoo xamante ñooy permettre euh, Dakar ñu mën ko ñu mën a décentraliser les institutions mais loolu yëpp dañ koy coiffer ak benn institution boo xamante ne c'est en gestation loolu duma ci dugg parce que c'est des choses yoo xamante ne ne sont pas pour le moment mm. en appoint mais daal euh, li pour nga xam au conseil ni muy doxee man ba ma ci duggee ak lu ñu doon wax may doo comprendre ne opposition bi dañ doon wax rek di sànni mais li ñuy wax ak li nga xam ne loolu dëgg wuute na trop. li ñuy wax naan maanaam institution budgétivore la pour caser juste ay clientèle politique kon loolu dañ koy wéet. ñoom suñ duggoon ci institution bi. Hmm. ñoom am nañ ciy dugg. mosuñ ko kaas ñoom Cheikh Gueye mos nañ ci dugg. Hmm. mooy maire jëppal mais hmm. mosut. il était même contre à ce que opposition du dem élection ak ñun parce que xam na lu lu lu nga xam ne moom mooy importance capitale collectivité territoriale euh, tout ce qui est planification évaluation euh, proposition parce que ñun notre rôle en réalité nekkul pour nekk communication mais dañuy proposer di un plan d'action national euh, projet plan d'action national boobu nga xam ne dañ koy proposer à l'institution institution moo koy jox président président xool nekk la ko seetu parce que xoo xoolee conseil des ministres décentralisé yi à chaque fois président dafay def euh, un conseil présidentiel de la gestion des collectivités mhm. territoriales mhm. loolu muy wane ne HCCT liggéeyam ci institution liggéeyam ci Sénégal dafa weesu li nga xam ne parce que ñu wàllum coopération dañ ciy yëngu wàllum des wàllum euh, politique de jeunesse dañ ci yëngu wàllum environnement dañ ciy yëngu am nañ onze commissions yoo xamante ne c'est des commission qui sont fonction et qui fonctionnent en permanence mm-hmm. man amul bés boo xamante ne dama koy xëy te aw awma ay documents yoo xamante dama ko war a liggéey tous les jours parfois moom il m'arrive de quitter au bureau à vingt heures parce que c'est une sarge boo xamante ne li ma yaakaaroon ne noonu lay demee ak li ma fa fekk foofu noonu damaa wax ne gàtt nga opposition bi dafa yàgg dañoo yàpp Sénégalais yi parce que HCCT li ko gën a ci liggéey amul Sénégal ñun ñooy déceler les les incohérences territoriaux ñun ñooy élaborer les projets communes et actuellement suñu envisager nañ euh, def une élaboration benn euh, plan d'action boo xamante dafay permettre l'intercommunalité pour que les communes d'arrondissement puissent élaborer des projets communes yoo xamante ne benn commune mënu ko endosser deux communes mënu ko endosser mais soo xoolee dinañ ko mën a trois communes mën nañ mën nañ def intercommunalité su ko defee dañuy corriger incohérence territoriale yi nga xam ne dafa am ci biir collectivité yooyu noonu. Mhm. ñu mën a élaborer projet boo xamante ne ñoom ñëpp ils seront il bénéfique pour leur population. Mhm. yooyu c'est des xamante ne dañ koy def euh, te am na ay ay mesures d'accompagnement boo xamante ne chaque collectivité territoriale bu ko def. da nga mhm. da ciy am pourcentage boo xam daf lay daf lay accompagner ci sa ci sa gestion collectivité territoriale. Uh-huh. waaw su yi am na solo kon mën déggee daal euh, euh, conseil des collectivités territoriales. Euh, am na solo. <laughs> torop torop <laughs> baax jaajëf ci leeral yooyu xam naa rek euh, ma damay dugg euh, actuellement ci actualité politique question bu njëkk bi day nekk gis nañu waa APR tenir nañu seen secrétariat exécutif national ci weekend bi est-ce que mën nga ñu ci dikkalaat ak ana yan mesure lañ fa jël. bon man nag nekkuma membre di SEN. nekkuma membre du secrétariat exécutif national. gaa coordonnateur national la. Mhm. mais. Euh, euh, coordonnateur national bi bu ñu reconnaître suñu suñu structure bi yàggul ba que structure maa ko créé. ok donc te man nangu man nekk topp ci discipline de parti. discipline de parti boobu moo tax euh, gaa nekkuma secrétaire exécutif mais nag lépp lu ci xew aussi. teew teewoon nga fa. maa yoon foofu noonu mais nekkuma woon au bureau du secrétaire exécutif mais après la conférence de presse j' étais là-bas. effectivement j' étais derrière fa jëlee. Euh, d' abord euh, réitérer suñu engagement ci son excellence monsieur le président Macky Sall rafetlu aussi liggéeyam fu mu jëlee Sénégal fu mu yem ak moom ak réussite diplomatique bi nga xam ne Sénégal am na ko ak euh, Afrique actuellement président fu mu ko yóbbu ci ci géopolitique mondial bi boo mu am ay ay am poste yoo xamante ne mu ngi koy in ay studio mu ngi koy intégré au niveau mondial. loolu ginnaaw yàlla yonent bi ci charisme président Macky Sall ci liggéeyam ak xereñam ci loolu lañ ko ci amee. Euh, remercier aussi kilifa diine ak kilifa aada yi ci ñaan jàmm pour Sénégal bi mais aussi réitérer suñu engagement ci président Macky Sall et que moom mooy suñu candidat en vingt 2024 ensuite demande à tous les responsables de la base de la base au sommet ñu dem occuper le terrain dem massifier dem def ay montage de comité parce que animation politique lañ toll te képp ku nekk fii muy am poste amoo poste ñun ñëpp dañu war ci war war a wàcc ci terrain bi euh, pour l'intérêt exclusif de notre coalition Benno Bokk Yaakaar pour que élection yi nga xam ne foofu lañu moom lañ dëgmal en 2024 président mën a gagné au mhm. ah, nga wax de muy euh, troisième <laughs> candidature boo xam ne déjà jur na coow yow yaa ngi ne da ngeen di porter li nga xam ne moom mooy candidature euh, boobu ci loolu sax am na kenn koo xam ne. noonu euh, doon doon na liggéey ak président Macky Sall muy ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf di ministre conseiller wax na àddu jëmale ci boobule candidature mais maanaam daal euh, Macky Sall da kaa war a teg ci suuf. non aaroon na hmm. président du morom aaroon euh, mën na wax ne man may morom parce que ñun dañoo def élection locale ci commune Biscuiterie ma nekk responsable politique mu bëgg maa rëndi politiquement mu war ma investir ci liste bi ñu ne ko kii def lay sonal mu jël sama tur ak samay nit. seppi leen sànni leen ma ne ko comme sànni ngam ci commune Biscuiterie fii ak li ma fi liggéey depuis 2008 ba tey élection locale yi doo mos sa gis maire doo ko seen sa pour gis ko ñu dem élection ñu dóor ko lamentablement il n'est sorti qu'avec 3000 voix 3000 et quelques voix donc ki nga xam ne mënoo gagné mairie Biscuiterie dem élection ancien euh, ancien euh, les élections de locales passées avant yi demoon na amoon quatre cent xaw ma voix xaw ma huit cent voix je ne sais pas aux environs mu ñëwaat fii am trois mille voix kooku noonu su waxee ne Sénégal la soxla kooku day nax boppam te mag doon nax sa bopp te kilifa la kilifa nag da ngay xam sa bopp fekk ne nag daa soxla président na ko jaare ci voie légale ne ko man membre coalition la sa xarit la dama bëggoon nga recevoir ma audience ñu toog waxtaan moo gën nga dem presse bi di crier pour ñu recevoir la. li wax ci troisième noo gisee. na man toog na ci moom muy valider candidature président Macky Sall. Hmm. toog nag moom mu ne président moo gën Sénégal moo Mimi Touré toog nag ñoom ñu ne président moo fi gën képp kuy jeune président dañ ko war a jàppale donc suñ toogee di wax li man nekk da day nekk loo xamante ne seen wax du ma ko nawloo parce que kilifa soo ko donnee am na yoo xamante doo ci dugg mën nga mere nit ki mais le leen sale se lave en famille mais pas dem ci télévision yi pour am di ut buzz di wax bëggoon naa def conférence de pour tontu ko. mais après euh, beaucoup de gens ils m'ont appelé ne ma non bu ko may buzz bu ko may buzz bu dis bu dissiper sa sa énergie bu ko yàq bu ko épuiser donc concentre euh, concentré ci sa montage de comité ak ni ngay communiquer pour président donc man ni leen donc y' a pas de problème mais Arouna Mandofène day caaxaan fookat day fo li muy def. ay fo kese la ay caaxaan kese la ay naxasaane kese la mais il n'est pas du tout sérieux dans ce qu'il fait. Eh, mais du Arona Coumba Ndoffène Diouf kese gis nañ maanaam mbirum troisième mandat boobu moom euh, Samba coow lim jur bëri na du bu weesoo na kese ñu bëri jàpp nañ ne moralement d'abord euh, loo xam ne nii warul nekk la ñeneen nit jàpp ne même sur le plan constitutionnel lu mënul nekk la ah, kon pour insistance boobu. dañu am yoon. Mhm. nee nañ la loi est dure mais elle sera une loi. yoon suñ Sénégal dafa am constitution. constitution boobu noonu gérer sant gérer wul sentiment gérer wul moral gérer wul ay compréhension ay loi ak texte yoo xamante ne dañ koy appliquer képp koo xamante ne nit nga di yeewu Sénégal président constitution bi moo nekk au-dessus président. Mm-hmm. la constitution est au-dessus aussi de la parole d'un président. donc tey mais kaddu am na solo de Samba kaddu lu am a am na solo waaye nag yow réew lañ nekk. Hmm. ci réew lañ nekk moo boo xamante dafa am constitution boo xamante ne Sénégalais ñoo ko voté nangu ko ne nii lañ war a doxalee président bu mu avis au conseil constitutionnel en 2006 février 2006 référendum dafa demandé avis pour wàññi mandat bi. Hmm. conseil constitutionnel est-ce que ko daf ko wax ne mën a wàññi sa mandat de sept en cinq ans parce Sénégal dañ laa fal pour mënoo ko wañ mu nekk avis défavorable donc mu ne kon noonu comme noonu la damay dem rek révision constitutionnelle wàññi mandat de sept ans bi en cinq ans mu wàññi sept ans en cinq ans mais lu ñu la wax ci constitution bi le président de la république est élu au suffrage universel par un mandat pour un mandat de cinq ans. Uh-huh. renouvelable une fois. Uh-huh. est-ce que sept ans la ñuy renouveler une fois wala cinq ans la ñuy renouveler une fois. c'est les cinquante qui sont renouvelables une fois. Mais, donc. Uh de deux seize. Uh-huh. en deux mille vingt quatre. Uh-huh. c'est le premier quinquennat qui sera renouvelé en deux mille vingt quatre deux mille mais boo waxee loolu man mën naa leen mën naa la ne la euh, constitution bi dafa ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs waxul de cinq ans de sept ans constitution boobu loolu la wax. mais xam nga dafa am antériorité ak antécédent. antériorité ak postériorité président de est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Une fois, qu'est-ce qui est renouvelable une fois C'est un mandat de 5 ans. Après, nous, nous, nul n'a le droit de faire plus de deux mandats consécutifs. Oui. mille mandats dans le mandat na le droit de faire de plus de mandat de deux mandats consécutifs deux mandats boobu noonu mooy deux mandats de cinq ans. non mais yow yow nga ko déggee noonu. non noonu la demee yow mën nga ko déggee noonu mais keneen mën na ko déggee ne ma te tey it ñoo xam ne ay hommes de droit wax nañ ci keneen mën na ko déggee ne nul ne peut faire plus de deux mandats boobu c'est c'est deux mandats qu'il soit ans qu'il soit ans qu'il soit. xam nga xam nga am lu ko képp ko def man su ma nekkoon pour français soo ñëwee un la parce que mën na wax ne le président est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans ce mandat est renouvelable une fois on parle de mandat qu'est-ce quel est le mandat qui renouvelable une fois déjà la loi la a été abrogée le mandat de sept ans a été abrogé dindi nañ ko bokkatu ci sept ans sept ans au lieu de sept ans cinq ans la mu ne la dans la constitution on ne parle pas de septennat on parle de quinquennat de cinq ans donc tey su ñu waxee ne président war dañ ko pour mandat de cinq une fois. donc yaakaar naa ne su waxee plus nit na la de faire plus de deux mandats consécutifs les deux mandats consécutifs ce ngeen di jàpp parce que loolu leen. leen arrangé mais tey dégg nañ ay juristes yoo xam ne ay kàngam lañ. wax ay juristes aussi défendre nañ wax nañ si wax nañ si mais yéen peut être loolu yéen loolu leen kii loolu ngeen. mais mais ngeen doon jàpp mais bu weesoo loolu bu weesoo tey question juridique yi njiitu réew mi Macky Sall ak ñeneen ñu mu àndal dégg nañ leen ah du benn yoon du ñaari yoon même moom mu ne carrément lii mooy sama c'est mon dernier mandat bii bu jeexee demiliser ñu falaat ma bu ma paree damay dem est-ce que est-ce que est que loolu tamit. déedéet président nag déglu ma ñun ay ay militant lañ moom wax ne lii parce que ñun dafa am dañu am cër ci moom ay militant lañ am ci moom cër ñun ñoo bëgg président Macky Sall ñun ñoo koy jukkal. pour que 2024 mu nekk njukkal lu mu def pour Sénégal defal ko jeunesse bi defal ko femme yi defal ko adulte yi defal ko ñëpp defal ko Afrique ñun ñëw wax ne deuxième quinquennat dañ koy indi pour njukkal président Macky Sall ci lu mu def njukkal la. même bu bi di tàkk. réew mi lan moo koy taal. mais déjà gis nañ li fi li fi li fi li fi jot a xew. non lu fi xew entre deux individus la. waaw mu ngi mel ni tew te tey ma ñëw ne la yow da nga da nga sekk sama écouteur. accuser la nga porté ma plainte soo ma accusé porté ma ma la accusé nga porté ma plainte ana yónni monsieur X wala monsieur Y ana seen yoon seen yoon nekku ci ñaata nit la ñuy diffamé fii ñu dem euh, di def porté plainte te kenn ko yëg mais yow nga nekk magam jëm téem say télévision ay caméra di ubbeeku di wax di wax di wax di wax boo dugal sa bopp. Ousmane Sonko Ousmane Sonko ngay waxal. Ousmane Sonko lay waxal na dem assumer ay responsabilités moo gën ne fi di lambar lambar yi di taxawaalu. di ay wootee kaay leen ay garsa garsa ay jàppaleen feek ay Ousmane ak Waly moodu yooyu yëpp ay waxi caaxaan la. mais bu bu fekkee ne dafa gis ne dañoo dañ dañ ko dañoo bëgg a naxasal candidature am. 2024 euh, bu fekkee kon mu téye gëmëñam bu dee bu dee am loolu la jàpp. kon mu téye gëmëñam Ousmane xam nga lu ko sonal wax naa ko benn euh, sama conférence ñaari pay moo ko sonal mooy la parole et le plaisir parole bi gis nga Lamine. ba nee nañ euh, wolof nee na xam nga gémmiñ dañ ko moom lay waroon di wodd say ngor ne la bala ngay wax dara sa wax ji dañ koy remuer cette fois donc Ousmane dafa ne koo xamante ni c'est un logoré jaaree verbal la am moom su taxawee fii il souffre d'une maladie qu'on appelle la tachyphémie wax rek wax rek sans fondement doublé nag maintenant de la de la paranoïa parce que xam nañu paranoïa nu muy demee mooy il utilise discours grandiloquent systématique pour faire ébahir, en réalité, c'est un symptôme interne dont il essaie de, de, de corriger par des discours systématiques. mais ñu bëri dañoo jàpp ne dañ ko singili ñu bëri dañoo jàpp ne moom maanaam lii di nguur gi da kaa singili. ndax gis ndax ndax il il va en en tout cas quoi qu'on puisse dire tam c'est un c'est un c'est un réel opposant c'est un réel adversaire surtout bu bu régime bi euh, actuellement on le considère comme le numéro un ñu euh, de l'opposition ñu bëri gis nañ le régime bi il voit en lui peut-être un kii ba tax ba tax ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy. que gis nañ fi yenn yenn ñu ngi koy tere ak yooyu. bu bëggee manifester ñu tere ko bu bëggee def dara. waaw du différence bi nag. léegi pourquoi pas coow li ëppee pourquoi coow li ëppee si moom. Euh, ñooñu est-ce que dégg nga la ñuy wax lu ñu leen tëjee lu ñu leen lu ñu commandé lu ñu leen wooyee justice ñooñu ay hommes avec alors que sommes un homme de détail ñooñu xam nañ état da muy doxee. loolu tax duñ dugg ci yenn wax yi yenn yi bases yi duñ ko def mais Sonko xam nga soo mosul xalaat ne da nga am buzz yàlla su la mayee buzz buzz boobu soo moytuwul day soppeeku jaan ñëw màtt la Sonko loolu ko dal Sonko waxam moom ko rey ak ñàkk xam fu muy teg tànk Hansu Johnson def ñu doon wax dans les principes de la responsabilité nee la la politique c'est l'art de savoir là où mais Sonko livre boobu dama koy confier mu nekkoon na dem mais mais mais il mais il a un plan bien déterminé il a ses am tam am tam am tam ñu ko gëm topp ko si. tey ndaw ñu ko gëm tey bëri na. la am saaga xaste wax lu ñaaw sos inventé ay loo xamante amul ak ay def ay manipulation lii mooy stratégie Sonko amul benn projet de développement lii mooy stratégie Sonko Sonko am ba te problème am ak Mame Mbaye Niang wax dëgg neex yàlla ñu ne ci sonn na dem wuyu ci loolooy dëgg. jar woote bu muy toog ci télévision ne yor na ay preuve yor naa document yi ñu man damay xaaral ñu woo ma ma dem jëbal ko justice mais nañ fi daaw ko ay procès mun a yor ay dossier soo ko na bàyyi caaxaan bàyyi Sénégal yi muy fooyee xee seen xel yi fii manipulation bi du jarati moom war a réciser war a dem wuyu xam ne nag yoon fii force dañ koy doxal mënul bañ yoon force bu weesoo mbirum mbirum Ousmane Sonko yeneen tension yi ñuy nemmeekoo ak société bi di jóg ak euh, yi ni mel di wax ci li nga xam ne moom mooy ñetteelu mandat bi est-ce que gisoo tey maanaam njiitu réew mi Macky Sall euh, waxoon defoon loo xam ne dina apaiser li tension tension bi nga xam ne am na. non Sénégal amul opposition on a des oppos des oppositions société civile milliardaire société civile bu nekk milliardaire man ñan ñoo si am ñan ñoo si doon milliardaire. parce que noonu ñoom mais société civile ñoom xam nañ ne ñoom ay milliardaire lañ. Hmm. te ñoom ñëpp ay dóorkat lañ gëmuñ dara c' est à partir des tensions du Sénégal ki sa seen affaire ci lay baax <clears throat> gëmuñ lu ñuy def c' est des politiciens en cagoule ils signent des conventions avec des partis politiques ils signent des conventions avec des firmes internationaux ils signent des conventions avec le diable loolu ñun xam nañ ko donc tey. Euh, société civile amul Sénégal xam nga lu fi nekk ce n'est qu'un conglomérat de politiciens encagoulés looloo am ay bu encagoulés kese ñoo fi nekk te loolu nag euh, c'est un malheur faire croire aux gens que tu es clean alors que tu es le plus tu es plus sale que de la saleté loolu loolu personne c'est inqualifiable looloo man du ma leen déglu sax ay jom sente ñàkk jom sente je ne sais pas ay ñu kenn xamul ay ana am na am na ko fi doon yaa pense que c'est lu mu ko nommé ci partem ndax xam nga nguuram Pa nguuram ne ko doon fii di wax ne lii la société civile la fu mu mujjee daanu ci biir Pastef man à chaque fois man dama ko doon wax ne yow politicien encagoulé nga gëmu ko woon anam te loolu bari na gars yi di wax fii yëpp duñ ci dara ay dóorkat marto kese lañ. est que tey yaakaaroo ne maanaam coow lii yëpp kenn ki mën a tax mu dal. kenn la muy muy njiit mu Macky Sall en quoi tey mu waxoon carrément ne lii di troisième candidature bi ngeen koy ndax bi ngeen bi nga xam ne yéen militants yéen a nga koy buux di ko buux moom mu ne carrément def ma parce que tam posture moom posture bi mu nekk ak tam récemment li mu déclaré euh, l'Express daa mel ni koo xam ne nii ku nekk ci tànku briguer troisième mandat la. xam nga ñoom suñu xamoon ne président su demee du gagné duñ ko def événement xam nañ ne récréation lañ def lañ ah, dañoo jàpp ne bu demee mën na am ñu lugal ñu lubal mbir yi. dañuy jàpp ne élection Sénégal def ñu ko mën a lubal. Ah, ñu lu leen jàpp nañ ne kenn mënu lubal ci bàyyi sax gars yi di ñu ci bàyyi xam nañ ne président su demee mën na gagné avec plus de cinquante sept pour cent. mais jàpp nañ ne. ñoom ci seen jëmm dañoo defarlu ay sondage hmm. bu ñu defarlu ay sondage le président est venu en première position en pole position avec plus de cinquante six pour ñu defaat ay sondage les mêmes chiffres def nañ trois sondages ñoom opposition bi am. sondage yoo xam ne siiwul. non en catimini la. <laughs> mais xam nga ñun on est très informé on a l' information bu ko defee boo gis ne affaire bi saa waaye président Macky Sall bi nag ñun ñu ñuy yaakaar ne noonu la demee ak nu mu demee bokkul Barthélémy Dias taxaw na fi ne président am na droit deuxième quinquennat wax na ko songum ceeboom wax na ko soo toogee tey ñu ravaler leur vomissure ñëw di kaas loolu xamal ne kon yaa ngi sous roche angi sous roche bi mooy ne président saa muy présenté wu président day gagné président day gagné xam nga élection dañ koy jaar. yaa ngi wax assurance de. non élection dañ koy jaar xam nga ñun on est sorti avec 46 pour cent lors des élections législatives parce que le code de popularité d'un président. mais législative moom dañ leen législative dañ leen ci dañ leen di gagné moom dañ leen ci dañ leen dañ leen cee duma. lu ma lay wax science pour la lay tojjal. cote de popularité d'un président hmm. ça gravite entre dix et vingt pour cent la moyenne pondérée c'est quinze pour cent mooy ne su dee ba dee ba dee ba dee cote de popularité président mënu wàññeeku bu nekk en dessous de dix donc soo jëlee quarante six yi nga xam ne moom lañ amoon jël code de popularité président dugal ko ci 46 en élection présidentielle 2000 on gagne avec plus de 56. mais code de boobu moom euh, Samba quoi qu'on puisse dire wàññeeku na ci ñaari. non non non ci ñaari élections yu ah ñaari yëpp moom parce que ah. man dama la jox exemple man. Ah. élection locale à Biscuiterie xam man ku xam-xam ne man benn Bokk Yaakaar APR de 100 parce que man de 2008 ñun Macky Sall président Macky Sall lañ gëm man bokk na ci nga xam ne président Macky Sall lañ xamante ne. taxawaaluñ fenn doxuñ fenn kenn lañuy xool kenn lañuy déglu kenn lañuy soutenir muy président Macky Sall man xam naa ne élection locale su nekkoon ne président Macky Sall moo doon def élection locale ñemewu ma ñemewu ma ñemewu ma def vote sanction mais élection locale dama voté sanction élection législative gis naa xam ñoo xamante ne APR lañ mais ils se sentaient une menace ils ont voté sanction man gis naa loolu donc pour te dire que. am na ñoo xam ne am ñoo xam ne it maanaam ni réew mi doxee moo leen neexul. déedéet ban réew ñu def loolu it da koy. réew mi kay mu ngi dox. kay mais mi moom. mu ngi dox waaye itam problème yi mu ngi mu ngi mu ngi am Samba. ban réew problème yi bëri na. ban réew nit ñaa ngi kaas nit ñaa ngi jooy. déet nañ sant yàlla. Ah. war nga def émission ma jóge sama kër ñëw fii àll à def sama émission incha allah di ñibbi ak jàmm ak salaam nañ ñaan sant nañ sant yàlla am na ñoo xam ne bëgg nañu gën mënuñu gën am na ñoo xamante ne bëgg nañoo toog am liberté amuñ ko nañ sant yàlla bu baax Sénégal ça va bien te nañ sant président Macky Sall ak les forces de l'ordre de pour assurer la sécurité ça, ça va bien moom yéen ñi ànd ak yéen ñi yéen ñi nekk yéen ñi pare. ça va bien mu yokku ah. <laughs> ko. liggéeyam laa ah, ñu ngi sant yàlla moom ñu ngi sant yàlla. bu baax. parce que Sénégal mu ngi loxo yu baax te président Macky Sall mu ngi def liggéey mu am solo liggéey bu mucc ay donc nag tey ñun yaakaar na ne lu ñu war mooy ñaanal ko encouragé ko ci lépp li nga xam ne moom lañ moom ci loolu lañ nekk nii mu continuer man daal yaakaar naa ne loolu mooy le moo d'ordre te ñun président dañ koy investir. di di daal da ngeen défendre un a mandat. à tout prix. non waxuma troisième mandat parce que Sénégal gi na tàkk. lay wax. parce que troisième mandat bi wax ma premier mandat bi kooku moom. mais même bu dee deuxième kii troisième mandat il sera il sera il sera pré bu fekkee si toutefois affaire yi jàll il sera président pour une troisième fois troisième mandat lañ mën a wax. est-ce que da ngeen koy défendre à tout prix. man man xaw ma troisième mandat de man deuxième kii. est-ce que da ngeen koy défendre à tout prix. man man moom je défends à tout prix Sénégal gi tàkk. même même Sénégal gi même Sénégal gi tàkk. Sénégal lu koy taal. Sénégal doomu aadama mënu ko tàkk. Sénégal buñ koy defar booba ñun juddooguñ ku yaakaar ne mën nga taal Sénégal sa kër ngay taal ak say ak waa waajur ak say doom ak sa bopp mais mënoo taal Sénégal Sénégal kenn mënu ko taal képp ko bëgg a taal sa kaw lay këpp du leer naa la ko mag yi pare na yaakaar ne alxuraan bi ñu bind Sénégal xasaay yi jàng tey ñu fiy def loolu ak kurus yi ñu wir di loolu ay naxasaale la xanaa ku xamul mooy xeet suñ kilifa diine yi mais ñun ñi xam nekk ay ndongoy daara ñun xam nañ ne saa waay Sénégal doomi aadama mënu ko taal. képp ku am intention taal ko sax nga yàqu waxatuma nag ne da ngay da ngay taal te nañ wait and see wait and see dem qui vivra verra et qui verra saura ñoom s'il pense que Sénégal ñoom ñoo ko ëmb wosin ko ñoom ñu ngi nax seen bopp le Sénégal et le Sénégal avant la naissance de leurs parents Sénégal ñun fii lañ ko fekk te mu ngi entre de bons de comment dire de bonne mais te loolu day continuer donc ñoom bu yeboo nañ garder leur mal en patience fekkee ne ñoom nag dañoo jaayoon Sénégal ñooñu topp topp leen di leen di xoxotal nee leen non milliards yi xëpp ci yéen milliards yi def ci yéen il faut ngeen xeex pour que loolu président génni ñu ngi dax seen bopp ñun on ne vit pas de la pression et personne personne ne nous imposer la pression ou bien ne peut faire pression seen notre conscience bu yeboo ñu toog noppalu dem doxal yoon yoon doxal yoonam mu jeex. sama ndong maa ngi lay jaajëfal. merci. <laughs> itam kon mbokk internet yi nga xam ne. ñu ngi doon bàyyi xel di fàttali ne moom Samba Ndong euh, haut conseiller des collectivités territoriales nekkite responsable APR fële ci Biscuiterie di it euh, coordonnateur national bu COSECAR di convergence des jeunes cadres républicain ñu ngi koy jaajëfal bu baax di la jaajëfal ci teewaay bi di jaajëfal it kon mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel. Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono ci la mburu bi tàngee fii lay xayam xayamee xibaar yu war te leer ci bile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu war te leer ci bile jamono